ndeysaan bisimilah yaare bi nag faa si bëggal mboolem koo xam ne dund nga cosaan jaar nga si ndeysaan bàyyi nañ suñ batit bàyyi na suñ cosaan moo tax luy xew si sëy xew sëy barke yaa nga dem nee naa lépp loo xam ne mag ñi ñu ko laan lal lépp laal nañ ko wutee ko leneen loo xam ne du xam ngeen li lan moo ko fi jëlee ngonaar yi lan moo ko wàññi lu ñuy wax kompin kompin <laughs> maa ngi bàyyi xel jamono bi nga xam ne compine xew na bees waxambaane yu mag yi ak njigir yi ak ñu nga xam ne ñu ngi mat waxambaane bees xam nga jamono boobu nag lu ñuy wax rojo mu nga xew boobu nag mag ñi ngonaar lañ daan def bu xew xamante dëkk su ko defee nag rojo yi fukki bëtëre ak ñaar moo ñëwoon mu jigi ñuy wax mini seen mu jigi seen ñëw na <laughs> waaye waxambaane ne bu ngoon arxamaan maanaam am kude sëy mbaa kude jël su ko defee na fa ñu yàkkam di génnee seen rajo boobu ay sëyid waaye nga xew ak yeneen yile génne réew mi su ko defee mairie ak jeeg gi ndaw ji nag ñu nga fële nekk seen ngoon sa lalo yaay wéet génne réew ji nag ñoom na fa ñu ngerale ak waxambaane ndaw yi buñ tamit fële dellu ñëwaat fii réew saane cosaan fa neex ne naa nag compine bokk na ci lu ñu wàññi ngoonaa mujj gi nag gars yi fa ñu yeewu nag ñu daal di jël na boole ci jigéen ñi xamul lu ñu naan waxam bu baal xamaan ñu ne jigéen du fay jigéen du fay góor ay fay booba juróom benn fukk lañ naan fay <laughs> démbir mujj gi nañ yokk ko ba téeméeri dina wërale sàkketi nag ndeysaan waaye mag ñi nuñ aan fu la buñ dëppanteen leget yi la seen paan yi ba commencé seen ngoonaar yow mu bëgg démb fa nga laan taxaw rek foofu laan sa loxo xool bay nga kalaa xam ma siise joor bi démb réew sama xel dañ na ajaa ndey jaañ ak mënoon a fox fox ana Mariama Touré Ami Soote Touré bàjjen nday si kooku gox la ndeysaan eh, xaw leen waay xaw leen eh, ana ana ana ana ana borom olière bi yaakaar naa xamal la de borom parc su ko defee ne suufar bi da wanuwaale nag apprenti bi ay kaw la waay fa ñu def borom kër gu man kër euh, kilifa la ñetti yàlla muur de ndeysaan <laughs> waaye lu tax du jooy ëmb juróom weer nampal ko ci ñaari at yar ko ba màgg ñu xëy yóbbu ko jël ko nga xam ne benn muuraay lay doon dodo ko gis lu tax doo jooy wétaay bala ndeysaan <sighs> dem ñi nga xam ne seen xol yaa ngi xepp xepp de xam nga jamono kontum booba booba booba bësre oto yi le moom lañ naan indi bu asib bi di xam nga am na butéelu ñu naan dab asib butéelu weex yooyu yéen a koy fàttali eh booy bu ne taalibi ne buñ ko faraan fañ ko fañ koo for nag wala buñ demaan ñoor wala poste créé eh fañ koo for bu ndikkee ne raxas su bam tedd raxasee ko amu mbaa suuf buñ daan góobi sunu mbaa ñuy ruuji ñu jël ay sagar takk ko ci la duy ko ndox lay lay bu yor yor jotee na ngeen naan yenn saa da ngay mar yëpp ngay naan lay jamono soppeeku na léegi booy dem tool glacer ngay yóbbu ndax si glace teg sa ron garab bi bu ko bàyyi bàll mbay waxee kër ma di yaasin waaye boobu gutti as yi nga laaj jël boo laan wala nga doon ruuji dam sa mbànd ma na mbànd ma duy ko ba mu feex <laughs> ni xam na lu may Omar Touré aca nika manka nuyu sa sama te bu mag bi dimbire nee naa ko moom lu ñuy wax mom mom ni ka wa li li li li li li lii te muñ nak wayin tamit jël njor gi tek sa kaw gaay yi topp da wéy naan la bul joy on nañ bay doori nak jël doomi jambu fatke ñu yobbu ko naan ko bul joy muñu ah dimbire anu modou maram titu acca jogal taxaw li rek nga manal yow jeli katu ci magi mag ngi ni neexé lamañ nak ñom jeli ay li la mëna wax ba ndaw ci joge fa ba nga yegg ya lay ndaysan nga mat sa baram wi tax wala yow mata xamna ñoo xale bu ñëwaat dañ na la ki da du fi joge te luñu bëgg dafuñ ko tax tamit hey ay buñ la topé sen wax ju neex ja ba nga jox leen la ilaha illallah dem xam nga léegi lañuy wax ne da ngay dem ba pare lal bi doog a ñëw waaye bu njëkk nag balaa ndaw si de dem lal bu nga ko jëndal fa nga koy samp ba pare na bu naan samp lal wala ñu de seenti lal leen ndeysaan jamono boobu lal ak këpp moo xewoon lal ak këpp mooy lal yi la ñaari kamod yam faa gàtt nag gis nga bu ñu gora ba samp ko ne ba nga demaan fa yéen xale yi da da habbi rojan habbi rojan boobu sëyeegul nag wala muy sëy ci biir dëkk bi tamit Eh, nañ dem ca xuj nañ dem ñu xuj mu xabañu rajo yow sey Babou Mbaye yàgg nañ ko def ñoom apprenti xam ñoom bu ñooreyaan ba ñëw fu ñu xam wéccee na nag dèjà ñu xam benn rajo nag sarto te tuuti buntu kër gi na di teg ay kasitu regee <laughs> walaay Seydou waa basi mbalax yi la lay démb fa neex ak ñu ngi leen di nuyu ci émission bu mag bi ci démb réew mi yem ak tey benn fan ci weeru septembre ak 2024 ñu ngi leen dënaw yéen ñëpp na waaye déet waay déet déet déet ñu ne ñaari jeeg dañuy dugg ci biir dañuy fekk bay tëña yenn saa yi nga gis jaamu sa biir dugg nee na dàqu leen ma ko man nag man boobaa maa ngi sa oto ba man sa oto ba laay ne xam nga boo fañ bëggoon oto ndax fañ ko daan defar oto carton yi la oto findi feer moo tax bu ñu naan fa yee xool pune ñaari pune la bi ak ak lange lange bi ñu si daan def nag su dee afraan bi yéen boy sur oto bi dox na de dingi ak booy doole bi serenement bi <laughs> non chauffeur chauffeur apprenti léegi gars ñu ngi fay métier mi waaye ah apprenti bu bi da xàmmee ko bu daal di taxaw na gars yi commencé yéeg seet mais mujj a yéeg bi ndax moom buy seet bi dafay apprendre fëgg ñu départ non lii ba neex waay démb réew démb réew mi acca maa ngi nuyu mboolem ko ànd ak ñun mais na gars yi xëy si nañ de ñu ngi kii du Modou Sarr ba yee ngi borom ñaari tur waaye benn moom du ma ko wax El Hadj Amadou moo la koy tudd borom kër ma Ndiaye El Hadj Amadou mu baax mi maa ngi ko nuyu di ko ziar dinaa ko xaritu ñëpp la.